xam ne it nag moo ne ci penc mi mbokk ñëpp yilif kooku it am na responsabilité moom bu gën a yaatu responsabilité boo xam ne si bu gën a mag la kon euh, Serigne Mountakha Mbacké moom la suñu borom dénk lii mu di ko doxal ci ni nga xam ne si noonu lañ ko bëggee noonu it lañ ko séentoo woon ci moom noonu it la ko Serigne Touba bëggee woon daan ko def it ak euh, mag ñi ndax yéene ji nga xam ne Serigne bi amoon na ko euh, ci dëkkam bu sell bi képp koo xam ne si toogal nga ko fi rek. noonee nga ko war a doxale noonee nga ko war a defee yaakaar naa la ko dale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko fi teewaloon ba ci suñu jëmmi yàlla tey jii nga xam ne moom lañu toog tey mu nekk euh, ñetteelu xalif ci sët yi yoo xam ne si mi ngi euh, ñëw toog jataayub Serigne Touba yaakaar naa euh, mission bi mën nañ réussir na mission bi mën nañ ne mission la boo xam ne si ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko Serigne Touba bëggee noonu la ko defee président kon yegg si na mu ngi noonu di dugg si ci saal bi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir moo ko gunge ànd ak escorte ak it délégation bu mag boo xam ne ñoom ñoo ko gunge mu war a nag yegg ci biir salle bi. ngir euh, sëriñ bi dalal ko mu mën a. Euh, mu xam naa yaakaar naa ne léegi ñu tàmbali liggéey bi de. waaw waaw léegi ñu sax ndax président dugg na. président ñëw na mhm. ko jëlee ji buntu kër ba. Mhm. ànd moom fas yéene. waaw bu ñu waaw bu ñu koy daanaka rek mën nañ ne mhm, mu daal di tàmbali liggéey soog yàlla incha topp ci seen télévision Al Mouridiyyah ak mbooleem site ak euh, yeneen télévision yi nga xam ne si ñi ngi liggéey ak ñun di jël signal bi si ñun Eh, di ci ànd ak ñun ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax kon mo xam nga nek Europe États-Unis eh, Asie ak ci biir Afrique fo mo di nek ci biir Sénégal eh, li bu la nexé yaa ngi koy sétane kon en direct ci sa télévision Al mouridia diko sétane timit ci sen YouTube. lolu kon moy li nga xamné ci si moom mooy fi am ci jamono ji ñu toll di nak li ñuy wax nan l'histoire retiendra waye li histoire na ko retenir li histoire du ko fàtte mukk Euh, kon président mi ngi noonu di nuyoo te ak sëriñ bi histoire du ko fàtte mukk daañu ko takk daañu ko jàpp dana des ci anal yi dana des ci agenda yi euh, dana doon it loo xam ne si lu ñuy nettali lay doon ndax ba ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké wootee euh, doon wax ne dëkk bii def cee bëgg a jóg ci wàllu setalaat ko ci lépp loo xam ne si lu ci nekk la te bokku ci nam ko waxee woon histoire ba léegi da koy nettali dañ lay wax dat ba wax la jour ba wax la at ma wax la heure ba wax la mbooloo ma ko teewe woon wax la kàddu yi sëriñ bi yëkkati woon discours baa ngi fi dara jógu fi lii it noonu rek lay demewaat mu wane ne kon l'histoire continue waaye l'histoire retiendra ñu bàyyi leen kon ak euh, tuuti animation rek ci suuf su ko defee euh, ci kanam tuuti xam naa euh, sëriñ bi dana daal di nag jël kàddu ndax président mi ngi noonu di kon toog kon xam naa ba ci kanam rek incha allah ñu bàyyi leen tuuti ak euh, jàng euh, ci euh, kuréelu Hizbut Tarqiyyah yi en attendant président toog en attendant tamit ñu démarrer li nga xam ne si moom mooy kon waxtaan bi mbooloo mi noo ngi ñaan ñëpp déglu ana sëñ Mbàkke Abdourahmane sëñ Mbàkke Abdourahmane nañ ko may mu ñëw waaw waaw sëriñ bi Yuusu may ma tuuti Yuusu waaw waaw mu taxaw foofu waaw dañoo bëgg tuuti ñi ngi bëgg a tàmbali waxtaan wi tey jii nag président de la république ñëw na Mbakke def na na mu ko daa defee santati rek moo ko tax a ñëw santati yàgg na laa sant waaye day santati ya ko bole won ak Serigne Touba mu dem ca Serigne Touba am la mu bëgg ñew na tey day santati du sant kep yag na la sant day santati ya ko bole ak Serigne Touba mu dem ca Serigne Touba am la mu bëgg defalat na ba mu jek mu ni bala ma tambali nag liggey bi dem ca kama del won sama bay sama serigne sama xarit kama ni won lo bëgg demal ca Serigne Touba. ma wax sëriñ Tuubaa la ma bëgg am la ma bëgg moo tax mu delsi président ñëw na day santati rek mi ngi nii nag ànd ak ki nga xam ni mooy présidente conseil économique et social Mimi Touré mi ngi nii ànd ak Aly Ngouille ministre de l'intérieur mi ngi nii toog ànd mbay Mbaye Ndiaye ministre d'État mi ngi nii toog ànd ak Mahmoud Saleh mi ngi nii toog ànd ak Abdoulatif Coulibaly sa mbokkum ñooro mi ngi nii toog ànd ak ministre Omar Youm di kenn ci kër gi mi ngi ànd ak Moussa Balde moom tam di ki mu dénk mbay mi ma nga nee ànd ak Abdou mbay Mbay mbokkam ministre mi moom itam ma nga ànd ak nee Serigne Dame Diop di sa mbokk ministre ma nga nale mi ngi nii àndante ak Makhtar Cissé sa doom Makhtar mi mu dénk pétrole bi sa doom mi ngi nii ànd ak Karim Fofana sa doom mi ngi ànd ak Mor Ngom sa doom moom itam ci kër gi la bokk mi ngi àndante ak Mamadou rax ma moom itam di sa xarit di sa sop yaa ngi ànd sa doomu baay Makhtar Diouf di doomu président Abdou Diouf moom itam dikk na ak nag chef de service yi ci région bi yëpp. mi ngi àndante ak Mahmoud Saleh mais mi ngi àndante ak gouverneur de la région préfet sous préfet bu ndaam ak chef de service yi ak député yi ci fi nekk yëpp ñoom ñëpp mi ngi leen di tudd Isma Jum ci la bokk Cheikh Mbacke Sakho di kenn ci yow moom itam ci délégation bi la bokk kon nag sëriñ bi président ànd naa njabootam yëpp ñëw ci yow daa àndoon ak ñoom ñëw ci yow. am lu mu bëgg nga boole koog sëriñ Touba mu dem ca Serigne am la mu bëgg moo tax muy sant si santati yàgg na laa sant président day santati kon sëñ Mbacke Abdourahmane danoo bëgg tey président nag sëñ bi daan na la teeru waaye teeru tey bii daa am lu mu ci jublu tey rakkam yëpp ak i bokkam ak seex yoon wi ñëpp ñëw nañu ku kër gu mënta ñëw yabal nga kilifa mu ñëw ndax seex yi ay seex yi képp xëy ñu cib saal waaye moo tax mu ne kon sëñ Mbacke Abdourahmane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 شيخ محمود المنتقى الخليفة العام للمريدين حفظكم الله ورعاكم وتولاكم ونصركم وتمم بكم مراد سلفكم الصالح سرين بما soxlawon jabotuk serigne touba gi santone cheikh mahamoud al basir mi di yore kaddom mu sàkku ci ñoom ñu ñëw fii tey teew loole sëriñ ba Basiiru def ko waaye ci kilifteefu jëwriñ jëwriñu sëriñ bi di sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Ahad ba tax mu dem ci kilifa yëpp jot li leen ndigalul sëriñ bi ñoom itam ñoom ñëpp ñu jëfandikoo ndigal li ni ko sëriñ bi waxe woon ni ko sëriñ bëgge woon ba tax ñëpp teew fii ci jëwriñu sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy sa jëwriñ di khalifa bu sëriñ Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu njabootu Cheikh Mahamadul mustafa serigne ahmadou Moxtaar teew na ak njaboot gi njabootu Cheikh Mahamadul fadel serigne Abo ànd na ak gi ñëpp teew njabootu Cheikh Mahamadul Lamine serigne mustafa mom serigne sidou Moxtaar ànd na ak gi ñëpp teew njabootu serigne Abdullahi serigne Modou Habib njabootu Cheikh Ibrahim serigne ndam attayab lena njabotam njabotou sëriñ Abdul Qadir Mbacke sëriñ Cheikh ak sëriñ Mouhamadou Moustapha ñu ngi teew ànd ak njaboot gi euh, njabootu Cheikh Salih Mbacke yabool na njabootam ñu ñëw teew njabootuk sëriñ bu sëriñ Cheikh Ahmadou mi ngi ni toog ànd ak njaboot gi njabootuk Cheikh Mouhamadul Mourtada sëriñ Fallou ak sëriñ Salih ñu ngi ni teew teewal fi sëriñ Mamor ak njaboot gi yëpp euh, waa kër sëriñ Touba yi di tàmbalee ci soxna Fatima al Kubra ba ci soxna Maymuna Sora ñoom ñëpp seen i njaboot ñu ngi teew bokki sëriñ bi ñoom ñëpp la sëriñ Mamour Diarra borom saam sëriñ Modou ab sëriñ Abdoulahi yàllaay buur yabal na njabootam eh, maam Thierno Ibrahim Cheikh Ibrahim Fati sëriñ Bachirou sëriñ Abbas yabal na ku ñaan na njaboot gi ñëw njabootuk maam Cheikh eh, sëriñ Mor Fati yabal na njaboot gi ñu ñëw nañ njabootuk sëriñ Balla Coro bàyyi sëriñ Bakke yabal na njaboot gi ñëw njabootuk sëriñ Cheikh Hafsa njabootuk sëriñ Masamba njabootuk sëriñ Mbacke Kajoor ñoom ñëpp ñëw nañ sëriñ Thierno Gelongal mi ngi teew ànd njaboot gi njabootuk sëriñ Ahmadou Ndumbe it sëriñ Ibra Xute na njaboot gi waa Mbuso bee xalifa sëriñ Buso bangaaj ñëw na yebal na njabootam waaye sëriñ Omar Buso mi xalifa sëriñ mbakki Buso it mu ngi teew ànd ak njaboot gi ñëpp teew sëriñ Maam Mor Sàmba jiite njabootuk sëriñ ma Sàmba gi ànd njaboot gi ñëpp teew waa kër eh, seexi sëriñ Tuubaa it ñëpp teew nañ tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak njaboot gi teew nañ sëriñ ma Massamba Diop sëriñ Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Abdourahmane Lo Cheikh Issa Dieng sëriñ Darou Assane Ndiaye sëriñ Abdou Khadir Ndiaye xalifaam ñëw na sëriñ Adama Guèye ak Cheikh Mababou Cheikh Mokhtar Bintaloo njabootu Cheikh Hamsatou Diakhaté njabootu sëriñ Aliou Diouf Lambaye njabootu Ndiatara sëriñ Moussa Diatara mi ngi teew ànd ak njaboot gi njabootu sëriñ Ahmadou Diaw Paxa sëriñ Thierno Diaw ñëw naan na njaboot yi njabootug sëriñ Makhoudia Marema njabootug sëriñ Mor Xaris ak sëriñ Malick Bassine njabootug Cheikh Ibrahima Lo sëriñ Mouhamadou Lo Ngabou ak njaboot gi ñëw nañ njabootug sëriñ Mbacke Gadiaga ñoom ñëpp ànd nañ ak taalibe yi ñëw waa kër sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Dagana waa kër sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye waa kër sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana njabootug sëriñ Baara Ñang njabootug sëriñ Balla Fally Dieng njabootug Cheikh Ahmadou ak mbokki yi nga xam ne yëpp sëriñ bi bëggoon nañu tew ci bis bi nga xamne man mën japp na ne yow yi la sëriñ bee soxla won gi mu te am na ci kilifa réew mi kon ñu jëbbal kaddu gi njiitul réew mi mu jottali kàddaam bu noppee sëriñ bi teg ci lañ ci wara a teg sëriñ bi président bi ngi ñëw mi ngi and ak tam directeur di doomi Mbacké waye mi ngi and ak sunu mbokk sunu xarit di kenn yag ak mom lool député assemblée nationale Farba di kenn ci mom ak njabot gu bari nun ñëpp nag ñu déglu président la république moo yëkkati kàddoom ak cantam jëme ko ci baayam sëriñam ki wumpantewul moom benn yoon soo ko defee nun ñëpp ñu ànd déglu jërëjëf bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi maa ngi teewaat fii tey sa wet di la nuyu di la ziar ziara boo xam ne ci sama xol laa ko tibbee jëm ci yow Sëriñ Tuuba di nuyu it njabootu Sëriñ Tuuba gi fi teew yépp rawatina sa rakk yu baax yi fi teew ak mbooleem jëwriñ yi ànd ak ñoom ak mbooleem taalibe yi fi teew yépp sëñ bi sama yitte moo doon bi ñu génnee ci élection yi rekk ma ñëw seet si la santaat la gërëmaat la waaye nag xat-xatu jamono ak yitte yu bare bare ci bitim réew ba démb moo ci mujj moo waral ñëw bi yéex war naa jóg nuy ji këru diine yëpp waaye tey laa doog tàmbali fii ci yow ñëw nuyu si la si ñëw bi nag mën naa koo tënk ci ay tomb yu néew ba ci jiitu mooy ñëw naa sëriñ bi ci sa kanam ngir santaat la gërëmaat la ci sa jàppale boo xam ni man de xam naa ko ndax lu wér la loo wane la waaye it lu ma gis la ñëw naa itam feddali la sama taalibe gën la joxaat suñu bopp gën a wone kóolute gi ñu am ci yow ndax xam sa yërmande ak sa ñeemtal ci man te it ne woon nga moom bul am benn jaaxle bul am benn jaaxle ndax lii nga ma wax ci yitte de kii nga xam ne moom lay liggéeyal muy sëñ Tuuba ci dëkkam bu tedd bii moom lay dënk say mbir kon nag ñëw naa sant la waaye santati sëriñ bi santale la sëriñ bi ndax la waxoon gis naa ko te yàlla may na ma ci ndam loo xam ne coow amu si weddi amu ci te li ëpp ci réew mi seen taxawaay feddali na kóolute googule moo tax war nañu ñëwit santale la sëriñ Tuuba bokk na ci li gën a tax ma teew fi tey ginnaaw bi ndam li amee terewul dama woote woo jàmm ci réew mi woote it waxtaan réew dañ koy waxtaane mënoon naa yem ci ndam li eh, doxal samay xalaatu bopp ak doxal programme bi tax réew mi delloo ma kóoluteem ak kàddoo waaye waxtaan woote boobu itam ñu sant si suñu borom bu baax ndax wuyu nañ ñu rawatina këru diine yi ak sax kujjee politik bi yàlla def na tànn na koo xam ne ci réew mi it am nañu yaakaar si taxawaayam muy président Famara Ibrahima Sagna mooy doxal waxtaan wi te waxtaan wi dara taxu ko jóg lu dul lépp lu gën a mën a defar Sénégal te ñu war ko mën a waxtaanee ba déggoo si te lépp luñ si déggoo bi ànd si danaa jëfe loolu ngir njëriñal Sénégal loolu mooy waxu débat bi nga xam ne euh, dialogue national ñu ngi koy tudd te ñu fas yéene gën a defaraat rek taxawaay bi gën a defar liggéey bi gën a defar démocratie bi waaye gën a it sàmm kaaraange réew mi ndax kaaraange réew mi donc war nañ ci bàyyi xel te di leen ñaan ngeen ñu ci defal ay dog te xam ni li wër senegal tey lépp doy na waar te liy yàq ba ci diine ji bare na kon dafa am taxawaay bu mu laaj ci këru diine yi waaye aussi ci état bi loolu maa ngi lay xamal ni daal lépp lu ci war état bi moom dina ci taxaw taxawaay yi war ndax li jiitu ci suñu liggéey mooy yor kaaraange gu doy ci réew mi aar réew mi aar doomu réew mi ci jàmm ak salaam am nañ yaakaar ne lépp lu ci sa yitte ci fànn boobu dinañ ci taxaw bu baax a baax li ci mangi itam lay fedeli, lii ma fi waxoon bi fi ñëwee ci election bi lépp lu Touba aajowoo ci liggéey dara duñu ko ci wàññi ci li ñu woon kon mangi ngi ñaan nga ñaanal ma mandat bu bees bii may tàmbali ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim ci ci rabbil alamina mu nekk mandat boo xam mën nañ ci lu ëpp lañu defoon ci bi weesu te it su boobaa lépp lu war si jàppale la sa liggéey bi incha allah fas yéene naa continuer di ko doxal dama ko doon defee di ko fëddali njaboot gi yëpp di nuyu njaboot gi fi teew yëpp di leen sant yàlla boole na ma si ak ñu bare bare kon maa ngi leen di nuyu waaye bu ñu la nuyoo ziyaara la rek ziyaara boobu yegg seen na si ñëpp maa ngi santati bu baax a baax di la gërëm loolu rek moo doon kàddu gi eh, di sàkkuwaat ñaan rek ak di la feddalewaat daal sama taalibe ak sama bëgg nga jàppale ma ci réew mi ndax sama yitte yëpp mooy lu jëmalee Sénégal kanam ba ëllëg moo fi jógee ku ne dana xam jéego ya indi Sénégal fa ma ko fekk ak fa ma koy bàyyi loolu rek mooy li ma yitteel li ci des moom ñu bàyyi ko ci loxo yàlla maa ngi lay sant la gërëm Mbàkke jërëjëf yal na nga fi yàgg it lool te ànd ak wér jërëjëf jërëjëf président wax ji rafet na lool yar nga ko lool am nag taalibe lool léegi sëñ Mbàkke Abdourahmane dafa am ci kër gu mu yëgut ñu may ko tuuti rek waaw kay kon mbokk yi ginnaaw bu ñu dégloo kilifa réew mi mu yëkkati kàddu yu am solo yooyu wax li ko taxoon a jóg ñu maase déglu sëriñ Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo woote woon ñu wuy siku ci teewaayu njaboot gépp sëriñ wakka sëriñ Afe sëriñ Moustapha Abdul Akram mi ngi nii ànd ak njaboot gépp teew teewal fa kër ga ñëpp kon ñu maase déglu dool yar wi ak teggin yi déglu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi woote woon te njaboot gi wuy siku wuy rafet yi ñu déglu sëriñ bi Mbàkke leeral la waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall taxaw gi ñu taxaw ci biti rafetal nañ ko lool ñu déglu ñu déglu sëriñ bi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

muy ñii nga xam ne ñoo bokk liggéey bi bokk sëriñ bi bokk di ko liggéeyal. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. bu baax. ci seen taxawaay. ci teewaay bii ñu teew. te ma bëggee woon ko noonu.

jamono jooju ma nekk taalibe bu nekk ci sama weti ay kilifa. jamono jooju ma nekk ab taalibe bu nekk ci sama weti ay kilifa. booba laa la may won yaakaar ju sëkk ci sama diggante ak moom. booba la won yaakaar ju mat ci sama diggante ak moom. ak doyloo gu mat sëkk. ak doyloo gu di ma tereel it ngir Serigne Touba.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 bima ma sama bop lolou nak tax bima ma seetee sama bopp. loolu dafay daal di ci man. lolou day dal di ci man. te foog naa ne. defe woon naa ne. doo doyee dig do aadama du ma jàpp. defe woon naa ne doyee dig do aadama du ma jàpp. ba may sàkku leen ni àdduna. ba may sàkku aduna ni man noppi won na ci bu aduna man noppi won na ci bu yàgg.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

maa ngi ñaan suñu boroom mii def di dindi ci barkeb sëriñ bi mu may la maa ngi ñaan suñu boroom mii def ak dindi sëriñ bi mu def jàmm ci réew mi maa ngi ñaan suñu boroom mii def ak dindi ci barkeb sëriñ bi mu may waa réew mi jàmm loolu mooy samay ñaan. di rek. nee di sant nag rek nag. kaddu yooyu rek. yooyu rek. laa bëggoon a jiital. ubbil ko Cheikh Mouhamadul Bachir. am na loo xam ju am na nag itte ju rëy ju mu fi fekk moom président.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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز العكيم إن الدين عند الله الإسلام له تضرعت فيكم مبغدا لكم ما لم تتوبوا له والله قد شهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي ndigalul الكلفة gu الشيخ محمد Cheikh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 mune la ma nga lay yebal ci barabu sëriñ bi bo demé nga fasfal nga bëgg dana lu ko defal ci magal tuba nga dellu ci wat mu wax la ne la jël na sa ngir dénk ko sëriñ tuba nga ñëw di wut ci mu waxaat la ne la dalalal sam xel ndax sa ngir dénk na ko sëriñ tuba nopi na ci kon nak lolu wala taktumu shahadata وما يكتمها فإنه آثم قلبه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 mu Cheikh Abdoul Ahad na nga jëkke ci moom door a wër mboolem kër yëpp na ma ko sant woon nag defe naa ko noonu kon bu ñëpp teewee Serigne Mbacke lim na ko léegi buñ tuddee Serigne Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mii sa jëwriñ mboolem yoon yëpp tabbi nañ ci biir kon wax ji jëru guddal ndax li Serigne bi wax doy na sëkk kon damay leeral rek li nga xam ne Serigne bee ko bind wax ko moo fas yéene rek. ni mu ko waxe ma jànge ko noonu ndax yàlla dafa def ni ko sëriñ bi waxe daf ma woolu ma ñëw mu wax ma ne dama laa bëgg a yónni ci président ngir nga yutal ma ko lii nga xam ne mooy sama bëgg-bëgg ci Touba ngir mu taxaw ci te jàpp ci sàmmali ma ndénkaanu sëriñ Touba fekk na loolu ci biir koor gi sëriñ bi yónni woon ma ci moom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 nang malen ko yëgalal jeerut nak mbolo mi di ñëw waaye ñii kilifa yi nañ ko yëgal ñëpp ñëw teewee ko ndax liggéey li ñu xamné ci ñom ñëpp li jëm te ñoo wara ànd sam liggéey bi بسم الله الرحمن الرحيم والذكر فإن inna تنفع المؤمنين تعليمات وتوجيهات من الشيخ محمد alcheikh mohammadin almuntaxa mbake alxalifati alaam انطلاقا من المبدأ الإسلامي السامي التي يوجب على المسلم عبادة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهو الأمر الذي من أجله أسس شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه مدينته المحروسة ودعا كافة روادها إلى الالتزام بهذا المبدأ الذي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 على ضوء ما قاله العبد الخديم رضي الله عنه من شخلته الصلاة عن الأشياء انتفع بها وبالأشياء وعلى الأساس نفسه فإن الخليفة حفظه الله يمنع منعا باتا في مدينة طباء وتوابعها تعاتي شيء من سائر المشروبات الكحولية والمخدرات أو بيعه ممارسة القمار بجميع أنواعه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 والمكلفة بذلك بالتعاون مع السلطات الرسمية هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما كثيرا صدرت في مدينة توبة المحروسة بعد مشاورة آل الشيخ الخديم رضي الله عنه وموافقتهم بتاريخ عشرين من شوال سنة أربعين وأربعمائة وألف من الهجرة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 lii mu dégg doy na sëkk de doy naa dégg it na ñëpp tàllal saba nañu toog nañu toog nañu toog bu kenn jóge fanga ne bu kenn jóge fa nga ne nañu toog nañu toog jërëjëfati Mbakke jërëjëfati Mbakke jërëjëfati Mbakke ci Mbakke nañu tàllal toog leen toog leen toog leen sëriñ bi ñaanagul toog leen ngir sakku ñaan ah Mbakke xol yi na de xel yi dal na de président président kontaan na xolam sedd na de dalal nga xelam de ah, sëñ bi nañu tàllal sëñ bi ñaan dalal nga xelam de lii sëriñ Tuubaa rekk mbooloo mi nañu toog sëriñ bi ñaan njabootu sëñ Modou Faye Jama ñang ci ñi ñu doon lim lañu bokk